donc bu ma fi kenn rey ak musique dafa xaraam ak dafa dagan ak dafa nangam xool yee bëgg voilà on est en campagne léegi nag hmm, lii nga xam ne moom la ku sell ki dogal ak lu leen nit mën a wax tappalekat yi ñu wax yàqkat yi ñu jéem nooxoor yi danañu génn dëmm yi danañu génn ba ci suñu biir infiltré yi danañu supp jalañu xataraayu Ousmane Sonko Basirou Diomaye Faye la tan pour ñu parrainer ko na aduna bi yëpp dégg lolu Basirou Diomaye Faye waji ji bu bu ñaawul bi suñu séeréer bu vilain wul bi ah le séeréer qui n'est pas trop vilain il est un peu vilain nak nañu d'accord mais pas trop vilain voilà suñu bi xaaral ma ñew tégal len ka Ousmane Sonko bëgg ñu jël ko gis nga il faut il faut d'abord ngeen xam ngeen top tout historique Ousmane Sonko ak Bassirou Diomay Fay sen xaritoo ëpp na une vingtaine d'années ay xarit la ñu impôt et domaine c'est son homme de confiance c'est son bras droit il n'a jamais trahi il n'a jamais résisté il n'a jamais manqué de respect mom il est toujours dans droit dans ses bottes Bassirou Diomay Faye ku jub ku jub ku jub nit ku jub ku baax nit ku jub ku baax ku bëgg réewam te bëgg Ousmane Sonko loolu nag teewul de ñoom El Malick Ndiaye ñoom Guy Marius ñoom biram Souleye Diop ñoom ñëpp ñoo ko waxtaane ñu tànn Bassirou Diomaye Faye c'est l'homme de confiance le bras droit le tout de Ousmane Sonko léegi nag patriote yi ñun dañu am des parrainages à collecter suba par exemple war nañu jël 1 million de parrainage xam nga suba par exemple dëkk bi lépp a war a taxaw ndax ñun ndax ñun Sonko bu laajee rek de xaar voilà suba 1 million de parrainage la ñu soxla dama ñu soxla yéen ñëpp ngeen jóg sol seeni ay dàll ngeen dugg ci biir dëkk bi di ngeen gis nag ay diversion comme gis naa sama benn waay di bind ni Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna gis naa ngay bind waaye duñ leen faale li ku sell ki wax loolu la ñuy topp Ousmane Sonko ne pas un régionaliste c'est un panafricain doxul ci ay mbiru kii sama mbokk la kii sama xarit la kii sama am doxul ci loolu day xool njariñu Sénégal Bassirou Diomaye fay la Ousmane Sonko tànn pour sénégalais yi ñu génn en masse

un million de parrainage la ñu soxla li ngeen doon xaar voilà dégg ngeen dégg ngeen seen ah Daba Seydou Dioma e jagañaawam buga dégg ngeen ko waaw waa ji lañu taan problème dana am ci dëkk bi nag ndax ñun ñëpp fi mu ne ñu dégg séeréer laa ilaha illallah <laughs> waay laa ilaha illallah y'aura problème léegi gars yi dama bëgg a ngeen focaliser wu ngeen concentré wu di ngeen gis nag fan yi dëmm yi ci suñu biir yëpp ak nooxóor yi danañu feeñ ci réseau yi sax ci ba ci ñun di ngeen gis ay nafaq yu maga maga mag troublés. yu mais je vous assure que on va les arrêter ñun ne duñu de kenn duñu ralentir saway 2 millions de parrains 3 millions de parrains sont soxla ba la parrainage bi di jeex on veut mettre on battre campagne comme il n'y a jamais été dans l'histoire du Sénégal dañu bëgg a def lu masta am ci histoire Sénégal Sénégal ba mu nekké Sénégal ba légui dañu bëgg ñu def lo xamné kèn kenn gis ci histoire Sénégal lool lañu bëgg dañu bëgg sénégalais yépp ngeen jóg sénégalais ak ah, jola xam nga fen nga ku la né mbir mi def nañ ko mbiru li ti amanti parce que Bassirou Diomaye fay fi la dëkk ndengeleer voilà ñom borom ndengeleer yi la le voici domou la voilà fii la ñu dëkk demuñu Casamance est-ce que Bassirou Diomaye li mu xam Casamance sax bariwul pour ngeen xam c'est un séeréer fi mu ne bu ñu benn doomu aadama Ousmane Sonko waxoon na leen ko nee na nee na leen ci Sénégal am na maamu séeréer am maamu joolaa ba pare nag am maamu tukuleur donc ñun xam nañu ki nga xam ne moom lañ ko seqal donc Bassirou Diomaye Faye la nous désigné mi ngi ci biir kasso bi nak xam nga legui naa fekk yi wax nan waw dañoo bëgg a war Sonko legui kon da ngeen ni ne ki nekk ci biir kasso bi xam nga Sonko vous vous ne savez pas la, stratégie de cet homme il est tellement avancé sur ces imbéciles là parce que tu as lo xamne ne bu ko defone ñu ne waw dañoo wor waw ñu nekk ci biti ñoo comploté ci Sonko ah legui lo leen di wax wa koñ ba parce que Sonko ki mu tànn mi ngi ci basiru jomai. ba Bassirou Diomaye xam nga tay do len mën a basirou Diomaye ci bir la di comploter contre son. xanaa loolu tamit do len parce que je sais que vous êtes capable de tout capable ngène génn fi suba ne wala daño comploter comprendre nga dama ne basirou Diomaye fay lañu tan il faut savoir qu'on est dans un projet Basiru Diomaye fay la Ousmane Sonko tànn pour ñu pare parrainer ko dégluwaat leen ma pour ñu pare parrainer ko bu leen fàtte ne Pastef am na ay député aussi donc Pastef mën na parrainer bu amee parrainage populaire ci député rek aussi mën na parrainer ñaari doomu aadama bu leen fàtte loolu Ousmane Sonko nee na ñu parrainer ji Bassirou jomay fay il faut nous ñu le capitaine du bateau. bi mano am capitaine du bateau te doo ko on a un capitaine il faut faire confiance au capitaine on n'a qu'à faire confiance lo tan nit nga ne ko jiituma lo wax def ba paré nit koku wax nga koy questionner we are not going to question what Ousmane Sonko has decided Sonko limu décidé ñun ci lolu lañuy dox lu neex Sonko neex nañu lu nakari makki neex nañu lolu moy wax ji il faut doomu sénégalais yi ñun ñepp ngeen il faut ñepp ngeen sommes xar Ousmane Sonko sante ñu def on a besoin d'un million de signatures de parrainage demain un million sommes tous soxla man nekkuma fi di layam-layame ay dix ay quinze na parrainage yi baax jàppale sénégalais allez voir les sénégalais ngeen seeti sénégalais yi seen biir kër Ousmane Sonko waxoon na leen kàddu nee na leen bu message bi jàllee comme ni mu war a jàllee en deux mille vingt quatre on n'a même pas besoin de battre campagne yéen dem leen indil ñu parrainage yi incha allahu rabbi na ñëpp jóg suba tàmbalee ko ci man Ousmane Tounkara fajar moins càppantati dinaa jël samay fichier dugg ci diaspora bi ñi nekk sur le terrain aussi on vous a appelé on vous a appelé dugal fiche bi di ngeen gis nitu Bassirou Diomaye Faye yi danañu dugg ci kër yi danañu dugg ci jàkk yi danañu dugg ci koñ yi danañu dem ci penc yi danañu dem ci village yi danañu dem fépp ci biir Sénégal pour pare ne kan Alaaji Basiru Jomaay Fay mu sell mi voilà yokk leen ci mu sell mi kenn bu mu wax nag bu leen jomaay jomaay noonu rek boo leen jomaayee daal di leen ci yokka bu sell mi voilà jomaay mu sell mi la na mu leer na leer de sama mbokku séeréer yi caaxaane wuñu loolu jomaay la tànn ñun jomaay lañu bugg moom la ñu tànn incha allahu rabbi incha allahu rabbi na ñëpp pare bu subaa incha allahu rabbi fajar mooy càppantati sama gars yi maa ngi jéggalu yéen ak may woo téléphone boobu ngeen may wooyee calaa nekk en direct voilà par accident dama changé téléphone yi nekk en direct ci téléphone boobu voilà donc fexe lépp loo man ngen génn ngeen parrainé Diomaye nañu parrainé Bassirou jomay fay moom la ñu ndigal wàcc jox nee nañu ka yónni pour ñu parrainé ko mi ngi tudd jomay Diomaye Faye na ñëpp jóg à leur nañu jog ñu pare ne Bassirou Diomaye Faye waa ji ñu bëgg yobbu amna am nañu lu ñu xeex voilà am nañu lu ñu fi mu toll bu dé xex rek am nañu parce que sa way boo bëggee sa xex sa morom ñu ne la kuy doré man kuy saga. bàyyi leen Macky Sall ak ñoñom ñuy mer di dal ci kaw nit ñi yeen ngeen sol seeni ay t-shirt sol seeni ay dal dama leen di sas nag nee naa leen un million de parrain la ñu soxla influenceurs yi am gën a am doole ci ci Sénégal nag laa wax waxuma les petits como-como les influenceurs les plus puissants du Sénégal woo naa leen yéen ñëpp si seen page yi ngeen bind leen rek jomaay bindal leen ñu rek jomaay voilà yéen ñi gëm Sénégal yëpp bind leen rek jomaay loolu rek la ñu ñaan fimutolni jomai toll Ousmane Sonko parrainel jomaay c'est parrainé pour Ousmane kim nous guide, c'est jomaay donc nous on va se focaliser sur Jomai. I'm ready I don't know about you moi je suis prêt je ne sais pas euh, si toi tu es prêt mais man parrainé. parena pour Top Nigel. insha Allah rabbi ndigal gi limu wacce daf ñu ne ñu top jomay point ñu fi ñu nek fi di calculer di def li di dugg fi, di genn fele di di di di sosak di wax lu ñor ak lu ñorul dedet on nous a dit de suivre Basiru jomay fay mom lañ ñu wax donc basiru jomay fay bobu ñu ñu wax ñu top mom rek la top voilà donc gars le mot d'ordre est tombé que nous ci kenn nag ne dégoulo. voilà man dama moi je suis pas d'accord moi je suis d'accord amul problème tu n'es pas d'accord c'est bon Nous sommes sommes d'accord nous nañu d'accord ci dara on aime Ousmane Sonko et on aime le Sénégal et Ousmane Sonko a choisi pour nous Bassirou Diomaye Faye pour qu'on le parraine tëjul buntu yi comme nga boo intelligent xam ngeen Sonko n'a pas fermé les portes Nous ñun am ay député assemblée nationale donc ba légui mom Ousmane Sonko suñu candidat la ba il est là il est candidat et il est présent mais daf ñu né mu parrainage populaire nañu dem ñu defal ko Bassirou Diomaye Fay. loolu lañu Ousmane Sonko wax parce qu'il faut savoir qu'on est en face des bandits il faut toujours que ñoom bu ñu tegee ndëgg sërëx ñun tamit ñu indi contre contre mesure te loolu lañu ñu Sonko sant Ousmane Sonko mu sell mi moo ñu ne ñu dem ñu parrainé Bassirou Diomaye Faye te Ousmane Sonko bu ñu ne ñu parrainé Bassirou Diomaye Faye ñun amuñu ci beneen kàddu lu dul ñu dem parrainé Bassirou Diomaye fay loolu la kilifa gi wax léegi nag bu fekkee yow da nga am sa agenda personnel nga am sa haine nga am sa mettit nga am sa naqar wala nga doon régionaliste wala nga doon raciste yow loolu sa problème la yow donc yow la sa xol di metti mais ñun Ousmane Sonko la ñu topp te Ousmane Sonko mu sell mi bi mu wàccee mooy na ñëpp topp basiiru Diomaye fay donc Basirou Diomaye fay boobu ñu ñu topploo bu ci yàlla àndee fas nañoo yéene ànd indil ko 3 millions de parrainage tous les patriotes du Sénégal sont invités de Velingara, de Fongolemi de Tambakunda, de Kédougou de Jigenshor, de Kolda de Sédhiou de Fouta de Podor de Dagana vous êtes tous invités à parrainer Bassirou Djomai Faye point Maintenant comme je suis radical, mais je suis aussi quelqu'un qui respecte mon leader. Ousmane Sonko, c'est notre leader. Et tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on va suivre, inch'Allah Rabbi. amul dara lo xam Top, dinañ ko top. lu président Ousmane Sonko wax ginnaaw loolu nag ñu invité aussi fi Patriotes New York ñun avons... ah suñu poos day xasan dañu bëgg dajalé dajale lu tollok ñaari téeméeri million pour campagne électorale bi di ñëw amana sax ñu def ko ñetti téeméeri million voilà loolu lañu bëgg dajale nous voulons rassembler 300 millions de francs CFA inshallah rabbi donc mané nañu paré lépp nañu paré préparer pour ce combat ce combat est le nôtre buñu ñu ñu top ay dof ben groupe clan euh, ridicule bu ñu topp ci réseaux sociaux yi di ñu duulal ak tànqal di ñu amerde naan ñu waaw man sonko point sonko point man nangam dañuy divertir concentrez-vous sur ce que le président Ousmane Sonko a dit nee il faut écouter les voix autorisées déglu len voix autorisées bu len déglu ay nit yo xam amuñu ben position ben taxaway benn man-man ci Pastef bu leen leen déglu ne les écoutez pas c'est des politiciens déguisés qui sont ki son sont qui qui qui, qui nous infiltrent et qui veulent nous divertir bu leen ko nangu de concentré wu leen si Jomaay Jomaay la ñu Ousmane Sonko wax ñu concentré wu ci on se concentre sur Jomaay fay Guy Marius Sagna d'accord na biram Souleye Diop d'accord na El Malick Ndiaye d'accord na Amadou Ba d'accord na Top génn na sank dégg ko limu wax donc dama on se concentre sur Jomai point nee naa leen voix autorisée rek li sax aussi dem leen moom it bind na ko képp koo xam ne Pastef te yow Pastef nga gëm te yow da nga gëm projet bi. il faut suivre les instructions des voies autorisées il ne nit ñi affaiblir affaiblir voilà il faut pas écouter les gens qui veulent nous affaiblir bu leen Glou. Qui ki Ousmane Sonko tan nañu top koku Ousmane Sonko lu mu def je vous le garantis il ne prend pas les décisions très légèrement Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un qui prend les décisions très légèrement maa ngi jéggalu yéen ñi may yónnee message ak di ma bind mënuma gis seen message yi ndax numéro téléphone bu populaire bi nga xam ne moom laa am moom laay live donc seen message yi maa ngi gis muy pap ci écran bi mais mënuma koo liir pour wax ci donc dimbali leen ma ngeen comprendre mais Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay la désigné pour ñu topp donc ñun Bassirou Diomaye fay képp la ñuy topp topp ñu keneen Bassirou Diomaye fay képp la ñuy waxal ak donc gars nous nañu concentré wu focaliser wu sur Bassirou Diomaye Faye point man Ousmane Tunkara... je parraine Bassirou Diomaye Faye donc je demande à tous les Sénégalais dignes du nom tous les Sénégalais à travers le monde à travers la diaspora nous jóg ngeen xar nous tànk tubéy ñu de ki nga xamné ne moy Basir Diomaye Faye point nous lañ ñu sante té et moytu borom duplicataay tappalekat yi fiche boo leen yóbbu xool leen ko xoolaat ko réviser information yi ngeen di jël information booleen jël tamit make sure leen ngeen jël ko jëlin bu baax bi yan ñi ñu ne woon ngeen jàpp seeni carte d'identité jàpp ngeen ko joxe ko jot na dañu ne ngeen jox ko basiiru Diomaye fay ci mbirum parrainage bi incha allahu rabbi donc gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ne parrainage bi suba lay tàmbali pas ginnaaw suba de suba lay tàmbali incha allahu rabbi suba le 20 novembre lundi le 20 novembre 2023 ci la ñuy tàmbali li nga xam ne moom mooy parrainage ñun soxlawuñu lu ëpp fukki fan fukki fan buñ ko amee dinañu dajale Sénégal yépp incha allahu rabbi ñëpp jox ñu kàddu ñëpp jox ñu seen baat ñëpp jox ñu seen carte d'identité léegi nag ku mer bokkoo waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu léegi nag gars yi bismillah nañu dem enjoy suñu bopp enjoy suñu dimanche préparer suñu lundi voilà suba incha allahu rabbi ñu tàmbali parrainage maa ngi di sant leen gërëm